الله أكبر السلام عليكم jërëjëf euh, mbokk yi ñoom ngi leen di sant ci seetaan gi ngeen di seetaan seen euh, seen Thiès 24 tey jii ñoo ngi fii ci som ci inigration bi nga xam ne moom la ñu ubbi suñu jàkka ji nekk fii ci Somme jàkka ji nag euh, suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne waa koñ bi ñoom ñoo ko jënd ndax danoo dem ba ci biir borom kër gi ñëw ni da leen koy jaay néegu yàllaa fi nekkoon ñoom ñu ubbi ko def ci jàkka tawax ko def ci jàkka def ci daara ay xale di fi jànge def fi morgue tey jii nag ci tàkkusaan bi ñu ñu fi jullee fii ci som moo tombé kilifa yëpp ñëw ak autorité ak waa koñ bi kon nag euh, ni ni njëkk a def rek dañuy daal di jokkook euh, sunu yaay Adja Maguette Gningue nga xam ne moom ci responsable la Adja ñu ngi lay nuyu ak sunu yaay di julli yoon julli ci yonent bi sallallahu alayhi di am kontaante lool nag tubaarkàlla macha allah lii dañ koy sumb mënuñu dara yàlla rek moo man yàlla moo nu ci jàppale ba fu nu ci jaar amul dara lu ci diis ñëpp jàpp ci julliti yàlla yi ñi nekk Sénégal ñi ne bitim réew ñëpp a ci jàpp ñii ci koñ bi nga xam ne quartier som la ñu dëkk itam ñëpp a jàpp ku nekk dëkk ku nekk jàpp ci tubarkalla kon lii bisub sant yàlla la ci nun di leen di ñaanal ñëpp nag ñëpp fekke lépp nu toog ba naan dañ koy rakkisewaat mbaa dañuy defaraat mbaa dañuy yokk nag kenn bañ a manqué kontaan nañu torop tubaarkàl la te nag waa som seetaanuñu nu ndax nag bala ñeneen ñee ñëw waa som a jëkk a jóg ku nekk def def ko sëyëf nu kontaan ci lool nag tubaarkàl la kon lii sant yàlla la bisub sant yàlla la yàlla dogal sax tey jii bi ñuy ubbi yàlla dogal ñu ngi fiy takkub sëy kon lépp lu luñ sëy biñ ci takkit yàlla na barkeel képp ku ci sonn nag ku ci dugal sa dërëm yàlla na la yàlla jàppale fay la ko fay la ko fii fay la ko fa nu jëm ndax fii mooy bànk bi lii ku ci def ci banque bi banque bu am solo baa ku ci def sa alal wëccoo ko tubaarkàlla yal na yàlla def jàmm jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf dañuy dañuy yi. mbooloo mi. ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne alhamdulilahi rabil alamin sant nañu yàlla bu wér ndax lii ba ñuy commencé ci terrain bi 12 millions la ñu soxla woon pour jënde ko terrain bi yàlla suturaal ñu ba ñu jënd terrain bi ba am bailleur boo xamante ne moo ñu tabaxal day ji jàkk ji ba ñu koy inauguré kon du ñu def lu dul ne alhamdulilahi rabil alamin sant nañu jullitu yàlla yëpp nag ñoo ngi sant jullitu yàlla yëpp di ñaan yàlla képp ku ci def sa dërëm yàlla na la ko yàlla fay ci daraja yonent bi yow it ñu ngi lay sant ndax boobu ba tey ñoo ngi ñëw daan ñëw di la fekk ca rajo ba macha allah yàlla na yàlla dolli jàmm ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa Adja Mame Binta Diouf. madame Mboup xanaa na alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin ñuy sant sa borom bu baax a baax ndax yéen ñii nu ko àndal tey ànd nañ koo yéen ba tey terrain bi ni mu toll ñu ngi ko doon majjaale à douze millions. yàlla dogal na am nan ko ba mu mat ba jënd ko yàlla dogal tey ñu tabax ko ba mu yegg ñu ñaan sa borom yàlla képp ku ci dërëmam dem rek yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay ñu ngi sant waa Thiès di sant waa waa waa waa adduna bi yëpp la ñuy wax ndax fii ba bitim réew fu sunu xarit ne fu sunu mbokk ne ñëpp barkeelu nanu fu sunu àndandoo ne ñëpp barkeelu nanu fu jullit ne rek participer na daayira yaa rasulullah macha allah ak ñëpp promotion école Bambara tubaarkàlla ñëpp ñëpp participer nañ ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon dañuy santaat san borom yàlla ndaxte dañ daan def ne yàlla ku sakam nooy ñaan ñu dina may sama yàlla soxla kon yàlla bi mu soxlaa muttali na lépp tey ba tey la inauguration jàkk ji jërë ngeen jëf. man la soxna Ndey Tuuti Caam dëkk ci koñ bi di ndey daara ci eh, jàkk ji alhamdulilah ala kulli haal alhamdulilah ala kulli haal bi ñu duggee léegi julli tàkkusaan ba sëlmal sama xol dafa tooy ndax fi ma dugg jullee fi moom la sunu waajur yi yu góor yi sos koñ bi daan jullee ma gis ne tey kenn fekkewu te lu ne jéem nañ ko ngir euh, jënd terrain bi yàlla dogalu ko mu dogal ko ci seen njaboot kon nag fa ñu tëdd yàlla na leen yàlla xaare ci àjjanay firdawsiya jàkk ji nga xam ñoom ñoo ko dooroon defoon ci seen ñax di ci julli juróomi waxtu yi yàlla na leen lépp luñ fa mës def yàlla euh, jottale leen ko ca fanu tëdd yàlla nañu gisee ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi seen njaboot gi mottali yéene boobu ndax ñoom seen yéene la woon dox nañ ci gudd dox nañ ci suba dox nañ ci ngoon tey njaboot gi ci koñ bi mottali yéene boobu ak ga ca ginnaaw ak ñëpp ñi def ci seen dërëm yépp def ci seen ñaq def ci seen coono ñoo ngi leen di ñaanal yàlla sunu borom bi yàlla leen yokk ba ñu yëg ko. fay leen ziar mooy baalu àq di ñaan yàlla yàlla boole jégal naa comme ni ko waxee rek wax dëgg yàlla sonn nañ ci bu lu bari sax wante buñ ciy sonn tamit ñi ñu jàppale ñoo tax muy waa koñ bi waa dëkk bi waa àddina bi ndax ba États-Unis ba France ba ñëpp Italie ñëpp. Italie ñëpp wax dëgg yàlla ñëw nañ def seen participation Thiès ak mbo autorité yeeg ñëpp def nañ seen seen participation wax dëgg yàlla dañ leen di sant rek di leen gërëm di leen ñaanal lépp lu nga xam ne moom lañ ci séntu yàlla nañ ko yàlla fay di ñaanal sunu jigéen yeeg sunu meer yi ci koñ bi yëpp nag wax dëgg yàlla yéen tamit di leen ñaanal. waaw boo si eh, jàkk ji ñaata la leen dikkee 12 millions. woon 12 mais ci daara ñu fi defoon pour daara daara ji def nañ ci presque 2 millions. wax dëgg yàlla bi loolu passé nag ñu euh, beneen projet boo xam ne def nañ ko fi. projet bi rek. projet mooy jàkk ji yi ñuy inauguré tey. projet bi rek def na 6 millions. douze millions waaw sans compter douze millions sans compter douze millions yi te ñun rek defaat nañ ci suñu alal boo xam ni lu bare bare defaat nañ ko ci suñu alal te ñëpp dem ñëpp ci jàpp nag ñëpp wax dëgg yàlla di leen ñaanal rek waaw am na daara daara jaa ngi ci mais ba léegi tamit ñi ngi ñaanaat ñi nga xam ne jàppale woon ONG nga xam ne jàppale woon ngeen di ñaaw rek ñu jàppalewaat ñu incha allah taala morgue amagul amagul morgue léegi lan mooy projet nii waaw suñu projet mooy jàkka ji nga xam ne moom lañ defoon bu njëkkoon mhm. mi ngi commencé di di commencé détérioré wu moom la xale yi di jànge fi ñu toll nii bu ñu sañoon waaw moom lañ def daara nii actuellement bu ñu sañoon nag ñu may ñu Euh, daara ak morgue vraiment bëgg nañ tam benn salle informatique boo xam ne xale yi dañ ci gën a cultiver bu encore yëpp bëgg nañ ko incha allahu taala léegi ku si bëgg a jokkoo di leen déglu ci yenn numéro lay woote waaw ku ci bëgg jokkoo euh, man sama numéro moom laa gën a jàpp nii muy 77 609 31 69 waxaat ko 77 609 31 69 mooy sama numéro am na Wave am na Orange Money ku ci bëgg a jàpp rek incha allahu taala nga jàpp ci wax dëgg yàlla boobu ba léegi tamit ñu ngi koy doxal macha allah fan la nekk ku ko xamul ci som boo ko doon expliqué waaw ku ko xamul boo ñëwee som boo ñëwee am na poste santé bu ñuy wax dabbaax mhm. wala nga ñëw ci école primaire bi ñuy wax école som école som ñu wax Ibrahima Jacques mhm. mooy benn école primaire boobu moo nekk ci som mhm. foofu daal wax macha allah daal wax dëgg yàlla